waaw Khadija ñu fekk fi Pape Sidi Pape Sidi boo ko tuddee sa xel for force ci hip hop Galsen lay dem événement yi gën a mag ci hip hop Galsen moo koy présenté moom lañ taxawal euh, ñu laaj ko lak nu mun a wax ci Ngaaka Blindé booyam ndax yagg na ko support ba muy wax waxu Ngaaka boobu du tey yàgg na am na benn clip bu Ngaaka boo xamante ni yàgg na xam naa gars yi bëri fàtte nañ ko mi ngi ci biir clip bi kon kooku yàgg na support Ngaaka Pape sama image la jël moo talee ko clipam ne waaw mais yaa ngi mu jëlaat si studio bi di foo mu jël sama ay image sàcc la boole ko ma laaj ko droit d'auteur mu bañ mu ne ma Samba la Samba Sion. non yow Ngaaka. gaay gaay dañuy naan. Pape Sidi Ngaaka booyam la Dip booyam la gaay ñu ngi lay jiiñ booy sa gaay yi nee nañ Pape Sidi dañ la koy jëwee dama la koy wax gaay yi nee nañ ku xew rek ngay àndal. ku xew <laughs> wax nañ dëgg ah <laughs> lu may def ci ku xewul yow. non mais Pape Sidi del jàppale booy nekk suuf. non mais booy yi ma booy xew yëpp nekk bi ma leen di xam nekku ñoon ci kaw. non mais gars yi nee nañ faa booy yi siiw nga soog leen xam. non no ku la wax loolu nee na ko prouver xool ñi siiw Sénégal yëpp en ce moment nekk au devant de la scène. bi ma leen di xam kenn xamu leen. bi nga leen di xam bi ma leen di xam kenn xamu leen man maa leen fekk si obscurité bu extraordinaire ma génne leen aaru mbedd chaque émission ma génne ko kenn mësul xam. non yow da génne bay génne kuy jaay fa kuy jaay. ma ne la chaque émission ma génne rapport bu kenn mësul gis boo xam ne danaan la c'est la première fois may génn télé. cap de sës daf ma yóbbante si yow. nee na dafa bëgg nga tëgg saay fa diggante moog Bux yóbbante la naa la bëgg naa ko woo naa Bux woo naa cap. cap nee na si Bux la des. non moom xëy na Bux nee na cap si cap la des. ñoom ñaar bu ñu bëggee ma tëgg ko dama am benn concept. bu tudd Big Saay fa. Big Saay fa Big ah Clash. léegi dama bëgg ñaari rapport yu ñeme. ñu ñëw ñu clashante man maay tëgg concert bi maay fay rappeurs yi cachet post production kii indi DJ kii indi DJ ñu taxaw boom beeg hip hop rap bu dëgër keng. mais loolu est-ce que pare pour def ko. pare naa dix mille fois woo naa nee naa am naa télé. pour diffusion. am naa sono am naa lumière am naa scène am naa espace fu ma ko mun defee public bi bu ñu leen waxee ne leen diw day def boom beeg show dañuy ñëw. bu ñu paree ku pare ak ko doon boo clashé ñaari parti yi gis si seen bopp ma gars naan ma no loolu est-ce que wóor na day dégénéré Modou Lo Balla Gaye moo gën a tàng te ay koñ ak koñ ñooy engagé wu te day jàll ci jàmm ak salaam kenn du ci dégg xoosu xoosu bu ñu kenn sonal affaire ragal nag moo fi am ay no c'est que wóorul xam nga affaire yi booy xoolal ñun on a besoin d'industrialiser ce hip hop et que pour ñu industrialiser ko il faut qu'on prenne des risques il faut que nit ñi bu ñu xalaatee benn affaire rek seen kër yi di palpiter wu këgëg këgëg këgëg kii est-ce que li mu def il faut des grosses productions mm. pour ñu mun atteindre le niveau qu'il faut mais mën ko xaar 2020 ah bu ñu paree ma ne pare na. mais bul fukki si ñaar ñooñu yeneen booy ñi ngi fi. yeneen eh, ah man c'est-à-dire man yeneen booy. xam nga ko Blindé ak Dip seeti leen. xam nga la moo na mm. la da ngeen a def dañ naa man piku ma mhm. da nga clash diw directement mu ne la man clash ma diw kooku intéressé wu ma mais xam nga loolu mënoo ko tëgg mais diw bu clash diw tudd turam diw clash diw tudd turam mais fii da ngay gis ku def pik gars yi tudd sa tur mhm. bu fekkee ñaari rappeurs dañu tuddante ay tur directement mhm. buñ ñëwee si man dama leen di organiser big clash ñu def ko te du nekk télé entrée lay doon payante damay make money dama lay fay gàtt gàtt one brick laa lay dóor ci taabal ji ne la am 1 million mu ngi nii am beneen rappeur bi 1 million mu ngi nii ngeen signé contrat waxante lu ngeen di waxante jour concert bi kii am 15 minutes kii am minutes quinze 15 première partie deuxième partie mu nekk ten ten public bi ñooy jugé bu ñu paree ah, concert bi amul ay dama bëgg dugg dama bëgg jël couvrir no ku bëgg a couvrir da fay bëgg nga couvrir mu nekk mu nekk ma ne business bàyyi ko proposé naa leen ko ba naaw def naa concept bi sécurisé naa wax naa lu ne nee naa leen booy venez on va faire un truc d'enfer mais après mooy loolu gars yi dañ naan la non wóorul wóor na mais Pape Sidi damay dugg ak yow si Galsen Hip Hop Awards yi gis nañ gay def ay publication di sànni pic nu mu demee te pourtant waaye di sa gaañ la nee noon sànni moom aw ma dara lu may wax si loolu boo amee beneen question nga posé ko Galsen Hip Hop Awards yi doo si wax dama ne ba déwén pour beneen comédie jeex na pare naa si dootuma si wax comédie Hip Hop Awards pare naa si dootuma ci waxaat moo billaahi jàllal ci leneen diin mais Pape Sidi événement yi guddee yi Ngaaka Blindé saa yu xewlee day guddee Pape Sidi lu waral loolu lan la. Ngaaka Blindé moo guddee si boppam. waaw xam fu mu dëgg ay géejewaay yooyu. mais jamono bi yaa ngi gis hip hop gaal seen pig yi fu nekk diggante Ngaaka Blindé diib ak yeneen booy yi wan lyrical loo ci wax. booy ay mairie la ñuy liggéey moo tax faw ñu yor ay pig pour gas ay pax. Pape Sidi ma loolu. non pig yi laa wax man loolu. baax na il faut mu am ay pig pour affaire hip hop bi neex aussi booy ji li bàyyi ñu quoi ñun xoola ah. amuñu ay moyens pour fay ay caractère wala ay. yenn agence de marketing communication yu mag yi pour occuper le devant de la scène. Mhm. il faut que gars yi ay astuces ay techniques hip hop bi. Mhm. East Coast West Coast ça a fait parler ça a fait décoller même le hip hop. Mhm. c' était aux États-Unis et pourtant c' est pas Biggie ni euh, Tupac qui le hip hop. c' les deux rappeurs les plus connus. le clash fait vivre le hip hop. du moment que c' est c' est c' est c' est un c' est des clash yoo xam ne booy clash yi ñuy yomb waaye ñun gis nañ clash lu ne ñun gis nañ ay nit ñu dege na jaas yi. ñun gis nañ ñin ñu génne ay sabre clash bu ne am na si hip hop bi ñun on a tout vu ñun amuñu problème yooyu Baye Góor ñi mu jaaxal mooy ñu ne ah, yow hip bi dafa bëri clash bàyyi nanu clash rayante non pas rayante mais nañ clash nañu clash parce que clash dafay dundal hip hop man xam nga ban clash laa dul dugg mooy clash bu soxor clash boo xam ne se li ko motiver lu bon la mhm. mooy nit ñi nga xam ne dañu am ay xol yu soxor nga xam ne bu ñu sañoon ñoom rek ñooy tekki si live bi dañuy iñaane nit mais clash nit pour xoos ko après gars yi ne waaye diw xoos na diw xoosante yooyu nice na quoi et puis même tali bi sax seexuñ dara seexoo dara léeg-léeg ma bëgg a jàll nga bëgg a jàll ñu xoosante mais Pape Sidi Pape Sidi day jubóole ay rappeur wala ay rappeuse bañ ku ko bañ ku ko jubóoleeg waay di laa fi jubóole lu tax bëggoo ku la jubóoleeg waay di yow mënoo bàyyi waay di mais lu tax ma koy bàyyi <laughs> mais Bégé Mbaye comment vas-tu waa association ñi yaa leen gën a nekk star dañuy liggéey maa ngi leen di ziar samay samay collègue lañ dama leen di nuyu sama gars yi ziar naa leen ma lax bi lan ne non mais samay collègue lañ <laughs> ay animateur lañ comme man